violence terroriste et éradiquer l'insécurité intérieure. La, Madame la maire Wardini a évoqué la violence, les violences dans notre pays inouïes et qui aujourd'hui eh, concernent principalement les violences exercées sur les femmes, euh, ce qui est également une lâcheté, évidemment. Donc nous sommes, Monsieur le Président, dans une société dont il faut véritablement s'occuper. Monsieur le Président, c'est parce que nous présumons que vous êtes mu par une Euh, naturellement, s'il s'avérait qu'il n'en était pas ainsi à n'importe quel moment du processus, nous en tirerions toutes les conséquences devant vous-même et devant le peuple sénégalais. Mais nous sommes là, mus par un esprit patriotique, avec la bonne foi nécessaire pour explorer dans un esprit d'ouverture toutes les hypothèses à même de préserver le pays. J'en ai fini, Monsieur le Président, vous avez constaté, comme je ne l'ai pas, que je n'ai pas évoqué, euh, ce fameux débat sur le troisième mandat parce que vous-même, vous l'avez déjà rejeté. Euh, président fii ñu toog nii euh, fii ñu toog di ci jamono tubaab bi palais du gouverneur général de l'AOF ab tubaab ba fi newoon ñu ne gouverneur général mu yilif fii ba Zender ñaame fii ba Ouagadougou fii ba Lomé fii ba Mauritanie fii ba Conakry juróom-ñetti réew yoo xam ne seenub dënd soo ko méngalee ak Inde ñoo yem te Inde ngi ci un milliard ak lu topp ci ay doomu aadama ñun xëy na téeméer ak lu topp te li ne fii ci alal ci suñu dënd boobu amul Inde te ba léegi gone yaa ngi dee ci géej gi ak ci désert bi président tubaab bi bañ fi nekkee dañ noo boole ñun ñëpp yilif tubaab bi nekkoon fii sa kër gi moo moo moo moo yilifoon réew yooyu yëpp laata ñu ñuy jox indépendance ñu tasaare nu booba ba tey ni ngi dang-dangi juróom fukki at ak lu topp mënunoo fexe ba booloowaat yaa xayti comme Sénégal la nu amandi mais ñu booloo fi xanaa bokk am déet waaw defe naa ne defe naa ne lu nu gàtt gàtt gàtt xel war na noo xam ne loolu lu nu war la surtout surtout que léegi pétrole ak gaz nee nañu feeñ na fi gisagunu ci àddina bi en tout cas ci Afrique réew moo xam ne alal yooyu am na fa te ay at musiba dugg fa waaw ah, danoo nar a toog nag di rafet njort rek di rafet njort di rafet njort ba loolu fekk nu fi loolu warta mën a nekk loolu nag monsieur le président yaa ko waroon na mën a def keneen mënu ko woon ndax ku ko bëggoon itam yow boo ko bëggul du mën a ne woote woon nga fi ay dialogue waaye anami woote ya moo desoon la preuve tey bi ñu awee ci anam yi mu ware ñoo ngi nii toog am déet alors foofu laay yam mi ngi bëgg a bari xam naa ne daal dinañu ci jàpp ni ñu ci war a mën a jàppee am naa yaakaar ci ne bu ñëpp jàppee dina sotti jërë ngeen jëf allahumma salli ala sayyidina